élection nañ njaboot gi yëpp xëy 8 fekk leen ci bureau de vote comme tout le monde buñ si noppee ñu dellu suñuy kër dal xaar résultat yi génn. sama carte sama kàddu mu nekk ab concept boo xam ni association sénégalaise des alumni moo ko taxawal loolu ngir gën a xirtal képp ku bokk ci askan wi ngir mu gën a fonk voté. en tant que doomu dëkk bi euh, juddoo fii màggee fii naam dem jàngi bitim réew ñibbisi di fi liggéey. Ah, ñu bëri am fi ay ndombal tànk ñu ne ah ñu waruñu toog seetaan war nañ mën a aussi joxe lancer ay message euh, ñaax nit ñi ñu dem jëli seen carte participer ci processus de vote bi de manière citoyenne ñibbi seen kër dans la paix. ci loolu ñoom association bi daanu amal ab caravane bu nar a wër ñetti région ci réew mi. dina dem ci fan yi di ñëw ci région wu Dakar euh, Guédiawaye euh, pikin Rufisque dinañ dem aussi Kaolack. région de Kaolack dinañ dem Tambacounda jàpp nañ ne ci ñetti région yooyu noonu caravane bi di jaar peut-être dinañ dinañ sensibiliser population yi euh, que ñu participer ci élection yi di ñëw de manière citoyenne et dans la paix. bile initiative citoyenne bokk na ci kuréel gi ëmb ancien étudiant boursier du département d'état américain faral di amal ñoom jàpp nañ ni woote dafa war ci képp kuy doomi réew mi. sama kaar sama kaar.